moom day filmé ok euh, asalaamaaleykum sëriñ na nga def. maa ngi fi waaw noo tudd. maa ngi tudd Mbaye Tine. Mbaye. Tine Mbaye Tine. Mbaye noo jàngaatee ci ndox bi nga xam nga tey bi dafa taw taw taw net yi noo ko gisee ndox bi ñu taxaw ni si yoon yi waaw xam naa ñu am ci naqar rek métti nañu trop nag. waaw métti nañu trop waaw métti nañu te amuñ ci benn pexe. waaw parce que ñun ñun ñu ngi yor benn société bi jàkkaarloog euh, ndox mi gis ko Sénégal parce que ñun ñu ngi bëgg a liggéey gars yi ñëwuñu vraiment nit nañu daal te amuñ ci benn pexe nguur gi bu ci mënoon jàpp daal xool beneen pexe ni ñu koy organiser daal dinañu gënal trop parce que ni ñuy dañuy bëgg a xëy dañu mën a xëy ñii di jaar ci ndox mi par rapport ak ndox mi jaxasoo ndoxu foos beeg yëpp man na indi beneen beneen affaire daal yoo xamante ne di xaw a compliqué vraiment bu ñu mënoon jàppale daal dinañu enragé. yoroo bu ñu tudd euh, Bourguiba. waaw yoon Bourguiba. waaw ah, Bourguiba en face Sénélec Castor. en face Sénélec Castor. ok merci. merci beaucoup. pause xam nga boo waxee day feeñ s'il vous plaît. Voilà, voilà, comme vous comme vous le savez, c'est comme vous le savez. Euh, chers internautes, comme vous le savez, ici c'est Euh, la troisième pluie euh, qui a causé pas mal de dégâts euh, gis ngeen oto yi am ngeen problème pour jàll population bi tamit nit pour se déplacer ils ont d'énormes difficultés pour se déplacer lu ko waral tamit ils lancent un appel tamit population bi ñu lancé benn appel état pour ñu trouver solution pour régler cette situation parce que les gens ont du mal à se déplacer les voitures comme vous le voyez il y a beaucoup d'eau je ne sais pas quand est-ce cette Maintenant, on a tenté de, de prendre quelques réactions des populations qui, qui sont exprimées euh, euh, ici. Voilà.